ibnu Chaqalabul Am génn àdduna talaate bi ñu génn fi nga xam ni moo di ci diwaanu Ndakaaru Njaay ñu indi ko Njaasaan rob ko ci bi ñuy julli tàkkusaan moom ndek mu ngi gane àdduna en 1929 génn àdduna mardi 2023 fi nga xam ni moo di ci diwaanu Njaasaan di doom ci Cheikh Albekaay Cheikh Albekaay di taawu Cheikh bu Mouhamed Kunta moom di caatu Cheikh Albekaay nga ne nekk xalif en 2018 ginnaaw bu magam ju baax ji génne àdduna ki nga xam ni moo di alaaji mam bu Mamadou mu wuutu ko juróomi at la toog ci xalif bi génn àdduna tey nag ki ko fi wuutu mooy cheikh bu sidil maxtaar ibnu cheikh sidil maxtaar ibnu cheikh bu Mouhamed Kunta muy xalif général des xaadir di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam yàlla sàmm ko yokk at yi ful ko ba at yi nga xam ni ay maamam ak i magam toog nañ ko fi mu toog lu ko fi raw ci barke Seydina Muhammad bu ko defee léegi léegi ngeen ànd ak lay sëy ñu dugg ci biir ni ma leen di dëgtal ñu ci biir résidence su Cheikh bu Mouhamed Kunta ñu dëgtal leen li nga xam ni moo di doom ak i sët ak i taalibe Cheikh bu Mouhamed Kunta yi lan lañ ñuy indil jëmale ko ci xalif bi nga xam ni moo fi génn àdduna muy Cheikh Albekaay ibnu cheikh albekaay ibnu cheikh abou mouhamad ñu dégg tamit li nga xam ni moom lañ ñuy wax ci xalif bi nga xam ni moo di cheikh bu sidil maxtaar ibnu cheikh sidil maxtaar ibnu cheikh bu mohammed kunta jërëjëf auzu billahi min alseytaan rajim bismillahi rahmaan rahim assalaamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki sénégal mbokki àddina waaye nag mbokki tariqatul xaadiriya waaye mbokk lépp loo xamante ni bi aju na ci ahlu kunti yu ak islam bi umma bi yëpp man mii nga xamante ni bi may bëgg a def waxtaan wi Mouhamed Mbaye di géwalu Xurays juddoo fii ci Njaasaan yaroo fi waaye màggee fi samay maam àndoon ak cheikh bu Mouhamed Kunta sañ ci dëkk bii di Njaasaan ci en 1883 ñu xëy nag keroog talaata ji yeewu yeewu waale tiis waaye yeewu waale itam naqar waaye lépp di sant yàlla ci ñun ñuy waxit ñun ñëpp rekk ci yàlla lañ jóge waaye ci yàlla rek lañuy dellu euh, metti na waaye li tax mu oyof mooy danoo ànd ak ñoo xamante ni bii ñu gëm yàlla lañu ñu am diine lañu ñàkk nañu kilifa gu mag mooy cheikhul bekkaay ibnu cheikhul bekkaay ibnu cheikh bu Mohamed waaye kan mooy cheikhul bekkaay ibnu cheikhul bekkaay ibnu cheikh bu Mohamed mooy caat ci maam cheikhul bekkaay mi nga xam ne mooy taaw cheikh bu Mohamed Kunta mi sañ ci Njaasaan gi maam cheikhul bekkaay moo sañ moom mooy caat ci cheikhul bekkaay mi nga xamante ni bii. moo mooy taaw ci cheikh bu Mouhamed Kunta cheikh bu Mouhamed Kunta nag kenn la ci góori yàlla yi kenn la ci góori yàlla yi su nu ko waxee mooy li nga xamante ni bii yan la woon boo xamante ni bii mu ngi woon ci maamam cheikh Bonaama nekk ci maamam cheikh Sidi Bekkaay nekk ci maamam cheikh Sidi Mouhamed nekk ci maamam Abdourahman nekk ci maamam Cheikh Sidi Ahmed saahibu naama ku ne xam na ko waaye ci li ñuy gàttal rek mooy ñoom Uqba ibnu Naafix mooy seen maam Uqba ibnu Naafix nag yaakaar naa ne lu nit néew néew néew xam-xam xam nga ni moo dugal diine lislaam fii ci Afrique ndaxte seen maam ba moog yonent bi ñoo bokk menn maam moo juddoo ci ëttu kër Seydina Muhammad Seydina Mohamed jël ko yaayam ju baax jël leewu ko ñëw tegal ko yonent bi ni ko ñaanalal sa rakk ji mu ubbi gémmiñam ga tifli ca ni ko al mustajaabu dahwa illaa yowmal xiyaam boroom ñaan gu ngay doon ba àddina tukki nag ba ko Seydina Mohamed waxee ba jaaxal na saaba yi ndaxte nee nañ ko ba nan lay dundee ba àddina tukki mu ni ko loolu day bi ma koy wax mooy njëritalam daal ñaan gu nungu du jóge mukk di am ci ñoom ci ñom Uqba mom nak ibnu nafikh Abdul Qaysi Luqayt ibnu Amir ibnu umayya ibnu Zarb ibnu haris ibnu fir di juróom-ñaareelu mamu Uqba waye di fukkeelu mamu sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax boo nee Muhammad abdullah Abdul Muttalib Xaazim Abdul Manaaf Qusay Kilaab Muratakaab Luwaay Xaalif Fiir ñu bokk menn maam ñoo yonent bi dañ leen di indil ci taarix rek li waral sax gàmmu Ndiassane ñoom ñuy ngénte ñëpp am droit màggal bisu juddu waaye Ndiassane moom am droit ngénte ndax waajur lañu ci yonent bi ndax sama juróom-ñaareelu maam bu nekkee sa fukkeelu maam damay féete wàllu waajur ci yow. Euh, seen maam ñuy nekk benn benn di dund ci jamono di dundit ci kaw suuf di nekk benn benn ba ak ci seen maam joo xamante ne bii ñu ngi koy wax Cheikh Sidi Mahamadul Bekkaay mu jël jigéen ju baax ju ñuy wax Lalla Aïssa Babou am ca ñetti doom muy Cheikh Sidi As Boubacar Cheikh Sidi Mandul ak Cheikh Sidi As Boubacar ak Cheikh Sidi Amar Cheikh. Cheikh Sidi As Boubacar mooy ki nga xamante ni bii ci Kunta moo meññi waa Njaasaan moom keroog bi Cheikh Sidi Mamadou Bekaay génnee àddina dañu saraxal ba ngoon mu boole der ya ak yax ya ni nak wi khum bi llahi jogal ci kartanu yalla nak wi jog mu dak ko mu delu ci gettu ka wa koku moy cheikh sidman dil bekay waye kunta nak baxawunu di ndamu ci ay xar baax lu ndaw la ci ñom même bokay wax sax dan na la lolou bu ëllëgee bu ko waxati waye xam nga man mën te gëna reuy ñu saraxal ba ngon sa sa wajur nga boole yahya ak derba ni wa khum bi llahi nak wi jog nga dak ko mu delu ci gettu ka koku moy cheikh Cheikh Sidi Aboubacar Cheikh Sidi Mamadou Bekkaay moom lañ denc walaata moom ma nga ñu aj ca kaw xer wa boo demee walaata gaynde ya di ko ziare boo demee ajjuma da ngay daje gaynde di ziare Cheikh Sidi Mamadou Bekkaay kooku mooy borom walaata moo nekk wala boroom rangoñ ya moom la ñu suuloon lu mat juróom-ñaari at ndox amul ñu toog boroom xam-xam yëpp di jooytu ndox ñu ni sama waajur wa waxoon na ma ni ma buñ ko suulee fu ndox di taa du taw mukk ñu dem sulli ko fekk mu mel na mu meloon rangoñ ya doon jooy ci benn rakka bu mu tardé woon mu continuer rangoñ yooyu ñu fekk ko ci moom perkaal ba changé wul kooku mooy Cheikh Sine Mamadou Bekkaay moo meññi yëpp waaye Cheikh Sine Mamadou Bekkaay moom dañ leen di jukkil ñenn ci ñoom rek Cheikh Sidi Ahmed Sahi bu naama boobu ma tudd léegi eh, moom mooy borom baaba lan mooy borom baa dafa dige woon ak ay xaritam ni day dem Màkka ñu war ko dem ci guddi gi ni ko xam ne jaamu yàlla ñoom yor nañu waruwaay moom yorul waruwaay ñu ni ko di nga xam ne jaamu yàlla rek du liggéey dal di dem ci guddi gi bàyyi ko mu xëy yeewu ci suba gi ku mu laaj ñu ni ko dem ko mu yeewu julli suba ba pare génn dëkk bi julli ñaari rakka ni am na yéene dootul dellu këram bi mu doxee juróom-ñaari tànk rek picc muy wax baa banjool yi moo ñëw wër ko ñetti yoon ni ko war ma ma yóbbu la nga dem siyaari sa maam Seydina Muhammad mu ni ko loolu day ooma ci ndigal mu ne ko yàlla sa borom moo ma yebal nee na nga war ma ma dem ziyaari sa maam Seydina Muhammad nga dem ziyaari sa maam euh, mu war ko moom Cheikh Sidi Ahmed mu yóbbu ko Makka mu dem ziyaari maamam Seydina Muhammad ba mu demee nag fekk fa ñi nga xam ñoom ñoo ko waroon te dem ñu ni kii daal jaaxal nañu ndaxte nan lañ ko mën a wàcc fële ñëw fekk ko fii kon dañuy toog xaar xam lan moo ko yóbbu ñu ni ko yow lan moo la indi mu ni kii maa ni suñu borom bi subhaanahu wa taala moo ma indi fii ñu ni waa baax na bi ñu tàggoog moom ci ñibbi gi ñu tàq làqu fenn toog di ko xool ñu toog jikki-jikki gis picc mi wàcc ñëw jëlaat ko mu yéeg ci kaw picc mi picc mi naaw jëm kaw mu indi ko mu ñibbi ñu ni kon kii mooy borom baa bi loolu moo waral ñu naan borom baa kooku mooy Cheikh Sidi Ahmed Saahi Bonaama euh, ki nga xamante ni bi mooy seen maam nag di Cheikh Sidi Makhtar Kunta bu Lanwaar nga xamni ni ku siiw la ci walu tariqa nga xamni kilifa yep nekkon nañ fa Cheikh sidial Kabir bi jur baba mu jur Cheikh sidia baba bout limite ma nga fa won ci daram Cheikh Maamin mi jur Cheikh Mamad Fadal mu jur Cheikh na Cheikh Saad bu ma nga won ci daram Cheikh bunama Kunta mi nga xamanteni bi moy wajuru Cheikh bu mohammed Kunta ma nga won ci dara Cheikh sid Mokhtar mom mo tarbiya Cheikh bunama yiwiko waye nan la ko yiwe bisu tabaski la ko yiwi ci 3 heures ci ngone cheikh bu naa ma cheikh Sidi Maxtaar dafa xëy ni ko suba la tabaski bul lekk bul naan te néewuma la lekkal néewuma la naanal mu xëy lekkul naanul di lakk yàpp di servir nit ñi di leen jox meew di leen jox ataay waaye lekkul waaye mi ngi benn soxnaam su baax di magam soxna Cheikh Sidi Maxtaar suñuy wax Lalla Aysa jikki-jikki xool ko ñeewante ko ni ko bu naa ma man de seetlu naa la ci suba ba léegi lekkuloo naanuloo lu waral loolu mun ko sama sëriñ moo ne ma bu ma lekk bu ma naan te néew lekkal wala naan naa mu ne ko loolu nan la mën a nekk ci bisu tabaski bi am lekkal génn meew jox ko ko muy waaj a naan Cheikh di Maxtaar génn lalaay sa génn ci biir xayma bi bi Cheikh di Maxtaar génne dafa fël këll bi meew mi tuuru mu ne ko lalaay sa bul yàqal naa ma mu ne ko nu ma ko yàqale ak li mu la tarbi yëpp bisu tabaski ngeen ko bu mu lekk bu mu naan mu ne ko tarbiyaam jeex na bu yàgg waaye moom moo ni ma naa ko defal lépp luy njëritalam bokk ci moom rek nekk waliyu garanti lu ma ko loolu waaye bis ni ki tey garanti naa ko taalu waliyu du fay mukk di génn ci ñoom bis boobu la ko wax ni ko demal bu subaa boo ñëwee loo gis nga wax ma ko mu dem ci suba si bi mu ñëwee la ko gis naa xorondom yu ñuul kukk di dox ci samay tànk ba agsi ci sama jumbox mu ni ko loolu mooy sa njaboot danoo war a ñuul mu ni ko sama njaboot danoo war a ñuul bëgguma loolu mu ne ko yàlla dogal na ko ci yow gëmmal mu gëmm mu ni ko loo gis mu ne ko àll bu lëndëm waaye garab yu ñuul kuk bari lool waaye genn garab gu rëy nga ca biir mu ne ko foofu mooy sa pénc yiwi ko mu déparé bu lanwaar jox ko ay fas ñaar fukki fas ak benn la ko jox juróom-ñeenti fase ñooy jigéen fukki fase ak ñaar ñooy góor Cheikh Bounama jaar ci àll bi Mali ñëw fii ci Sénégal bi mu ñëwee anakan la fi fekk Damel Amary Ngoone Sobel muy benn buur bu ñuy wax Damel Amary Ngoone Sobel Damel Amary Ngoone Sobel xëccoo woon ak Damel Birima fii ci Kajoor waaye Damel Amary Ngoone gañe ko Damel Birima dem siin toogi ci biir buur siin bi nu ñëwee Cheikh Bonaama fasam yooyu Damel amari Ngoone moo ko leb ba mu ko lebee nag problème bi mooy ba fay jotee nu ko fay dañuy gàttal rek ba mu ko taxawoo nungu ko fay mu ne ko ko teg maa may xàcc mu ne ko luy xàcc mu ne ko ñu dagg sunum njaayante nga woon ma ni nga woon ma ni jëndatoo mu ne ko may naa la ko bu naa ma àndoon na feek ay njabootam ku ñuy wax bilaal ak Matalla ñoom lañ ko booleeloon mu ne leen samp leen ay gétt ñu sampi gétt mu leen dem leen gubi ñu dem gubi foofu ñu ngi reetaan naa naar bi dof na ndax fas yoo xam benn baa ngi ndakaaru benn baa ngi luga benn baa ngi Bawol vraiment nga ñun la may nañ la xàccoo ak yow nga dem di samp gétt di gubi ñu ni ko naar bi dafa dof naar dafa bëgg alal bi ni noddu timis ñu gis fas yi mu yor kurusam taxaw ci diggante gétt yi fas wu ci nekk rek ngeexal ñëw taxaw ñu yeew ko palaasam ci la jigéenam bu ñuy wax joojam benn defaal gis kiimaan bi jën génn ni Cheikh ma dama la yebal ci sama rakk muy dammel Birima mu ni ko anamu mu ni ko magasin mu ni ko boo demee dina jënd fas yi waaye dina la teral ah Cheikh Bounama nungul ko ko mu boole ko ak benn jaamam ni ko boo demee wax ko kiimaan gi mu def ni ko naar bii bu ko ñaanalee rek moom dina moom kajoor bu ko ñaanalee dina moom kajoor mu dal di koy ñaanal boole koog moom ñu dem ba nu demee Chine fekk fa dammel birima dammel birima jënd fas yi sàkku ci moom ñaan bu naa ma ñaanal ko mu ni ko dama bëgg moom Kajoor mu ni ko di jeex na maa ngi dem mu ni ko wàcc naa tuub ci yow soo demee sama njaboot kan moo leen di tuubal mu ni waxu Cheikh Sidi Maxtaar du jaas kon mënatumaa dem waaw bi nga xamante ni bii nag loolu am na a ah, ci la ko may dëkkuwaay muy ndànk naar naar googu jur Njaasaan Njaasaan googu jur Cheikh bu Mouhamed Kunta Cheikh bu Mouhamed Kunta moomu meññ Cheikhul Bekkaay Cheikh ibnu Cheikhul Bekkaay ibnu Cheikh bu Mouhamed ñu xëy ñàkk ko ci benn suba vraiment metti na askan wi tiis na askan wi ñu ngi koy naqarlu di ko mititlu waaye ñu ngi koy sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaye la si Sidi Maxtaar waxoon rek kunta du ñu ñàkk mukk kenn mbër mu dem rek meneen mbër toog ki nga xam moo ko remplacé di Cheikh Sidi Maxtaar Kunta ibnu Cheikh Sidi im ibnu Cheikh bu Mohamed Kunta yàlla na fi yàgg lool te wér yéen it ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ndax lii dañu waroon a wër di war ay fas dañ ko daan war di ko takk di tàgge dañ daan dem fu ne waaye léegi yombal ngeen lépp da ngeen di fekk nit ba ci biir saalam ngeen taxaw mu wax lo xamanteni bi vraiment adina yep ci jot kon ñi ngi rafetlu sen taxaway di len ñaanal yàlla sen taxaway sen radio ak sen télé bi yàlla na nek ay télé télé yàlla na nek ay radio ay radio ci mbaxu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam way ci barke Cheikh bu Mohamed kuntu sunu yaakaar adina ak àllaaxira jeen jëf yàlla na leen yàlla dafa jàpp walhamdulillahi la ilaha illallah subhanallah wa la ilaha illa rabbi subhanallah walhamdulillah la ilaha illa salli ala sayyidina muhammadin sayyidi saadaati allazi wujidat maktubatun sifaatuhu wa sifaatu ummatihi fi tawraati suñu baram nee na kullu duunahu wa hu laysa kahu huwa al awwalu wal aaxiru waz zaahiru wal baatinu suñu baram nee na laysa ka misli shay'un maa ko wax yàlla nee na nuroowuma ak dara dara nuroowul ak man yàlla suñu borom nee na baay day dee nga donn ko yaay day dee nga donn ko ndijaay day dee nga ko yaay day dee nga ko baay day dee nga donn ko yàlla nee na donnante leen ba jeexee soo leen jeexee ma donnu leen man yàlla kenn du ma donn may waarisul jami kii donnu ñëpp ñëpp jeexee buur ba amul ndey amul baay amul maas amul moroom ki nga xamante ne lu ni tekk moo ko téye lu yëngu moo ko yëngal kenn mënu koo yëngal moom yàlla wutin wu ñaaw amin wu ñaaw ba deeni jaas ñu xëy la yeew dugal la ci bàmmeel nga xam ni loolu raglu naa ñu def la ci bàmmeel bu yees sotti si suuf ba mu fees nga tëdde wet menelo sobo pudara nga xamni lolu yalla rek la la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah la ilaha illallah ah mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah bo len dege kaddu yoyu di kaddu subhanallah walhamdulillah waye lepp di delu ci taqwa ci ragal yalla ndax ni ñu duggee noonu ki nga xamanteni ni fi jóge di Cheikh al Becaye ibnu Cheikh al Becaye loolu la daan digle motax ñu duggé nonu ndax ci diglé yi nga xamné daan nako diglé digle julli bokku na ci nangoo liggé bokku na ci daan na wax né yow nit ki wala yow jullit ki nga way bo jullee ba nopi fa nga tok bala nga fa juk lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw togal nga ñaan yalla suñu borom yalla fajj say aajo waye ci bir loolu ñu togg ki nga xamante ni mooy jaatu sëriñ bi di sëriñ Mohamed Bekkaay di doomu sëriñ Mohamed Bekkaay waaye nag di sët ci Cheikh Bekkaay waaye tamit nekk sët ci xalifa bi fi jóge di Cheikh Al Bekkaay am nu Cheikh Al Bekkaay am nu Cheikh Abu Mohamed ndax lépp sot seek def ci la di sëtu xalifa bi moom laa toogal nii waaye boobu ba léegi nag tele yaa ngi koy wër média yaa ngi koy wër rajo yaa ngi koy wër waye lamu ñak mo reuy ndax ki nga xamantene di mamam di cheikh al bekaay nu cheikh al bekaay xaritam la won ma am ay image yu ma gis yu mu jégué ko lol mamam bëggoon ko lol wax deug yalla kon koku bu fi mamam te boobu ba légui sanu ci kaddu amana mën na nuru lenen te wax deug yalla ñukay gis ci ay tante yo xamanteni dan na fa demal mamam di ki nga xamanteni mo fi jógee kon moom lañ toogal nii di sëriñ Mouhamed Bekkaay ñu tuddee ko maamam sëriñ Mouhamed Bekkaay di imaamu raatibu Njaasaan nekkoon ko waaye kooku nekkoon doomu Cheikh al Bekkaay kooku nekkoon doomu Cheikh Abou Mouhamed Kunta kon su ko defee rek moom la ñuy bàyyi kàddu gi mu sànni ci ay kàddu yoo xamante ni ci maamam bi nga xamante ni jóge na fi ndax wax dëgg yàlla kilifa gu baax la waaye sët bu yaru la di suñu sëriñ di jëggalu nag toogaay bi ñu toogaay nii ci kaw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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في العالمين انك حميد مجيد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم آه، وكي السلام عليكم خمنا في ني تجي سوني كادو رك داني واخني انا لله وانا اليه راجعون تي يالا بور بي لا ني جوغي تي موم لا ني ديل بو سوبي سوني بروم آه، دي ديف كادو نيو رك آه، ak kàddu yi seede yu gàtt rek ndaxte xol yi daanaka fees na ba nga xamante yi nii parewuñu woon sax pour wax fenn ci rajo wante dafa am loo xamante ni dañ ko dund rek ak sëriñ bi te muy suñu maam te ñu yaakaar ni war nañ ko mën a seede rek looloo tax ñu bëgg kaa kàddu yooyu wante ñu ngi nuyoo ci turu xalifa bi fi nekk tey jii nii di turu Cheikh Bou Sidi maxtar mi xalifatul am di tarixatul xaadiriya euh, di nuyoo tamit ci turu sama wayjur di euh, Cheikh Sidi Yaxya Kunta di taawu imaam Mohamed Bekaay di taawu famille bi euh, tey jii ñun ñii di wax ak yéen di nongo ci kër gi waaye di taalibe ci kër gi di sët ci sëriñ bi tamit bi fi jóge mu doonoon suñu xarit lool lool lool lool sax ndaxte yàlla dañaa nattoo ñun sëriñ bi laataa moo doon xalifa Euh, ñu nekkoon ak moom cees nekkoon ak moom wante dooloon ku ko jege ndaxte yàlla dimbali ñu ñeenti la ñeent lañ fa woon ñeent maam yoo xamante ni ñoom ñeenti ñëpp samay xarit lañu woon ñu jege ma lool sax euh, ki ci njëkk di sëy sëriñ euh, Alaaji Maam bu Kunt keneen ki ci toftal di imaam Mohamed Bekaay moom lañ ma tuddee muy sama turandoo waaye tegu ci sëriñ Abdoulaye Kunt tey jii xalifa bii fi jógee moo ma fi dese woon muy Cheikh Albekaay Albekaay tey jii moom moo wuy ji mu doon lu tiis lool doon lu metti lool wante nag sant yàlla ndaxte yàlla mi ñu ko mi ko fi jëlee moo ñu ko gën a soxla te yàlla mi ko jël lu mu soxla rek da koy def te li mu bëgg lay def te kenn du ci mën dara kon nag sant yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin waaye nag sëriñ bi dañ dafa doonoon ku ñu jege lool ñu xam ko nag ci mbaax xam ko ci wéttalikoo alxuraan xam ko ci def lu baax xam ko ci dimbali nit xam ko ci ay kàddu yoo xamante ni nii kàddoom mësta gaañ nit mam bikaay waxuma la diiru mu toog xilaafa wante diiru muy nekk cees bi bi muy doon xalifa mosuma dégg mam bikaay wax loo xamante ni gaañ na nit fa tabaarakallaahu mi ngi jàngee ci Baye wante bi mu jógee ci Baye Niass ba ñu ñëwee moo magam imam Mohamed Bekaay magam daf ko jël ni ko euh, sama waajur Cheikh Sidi Yaxya daf ma soxla pour ma ñëw nekk imam imam ratib bu Njaasaan wante yow toogal ma fii diirub loolu noonu mën naa wax ni duggul ci dëkk bi duggaatul ci dëkk bi ba keroog bi magam imam Mohamed Bekaay génnee àddina en 2011 sànq laay ci waxtaan ak Cheikh bu Diop ma ni ko bi sëriñ bi ma imaam Mahmed Bekay génnee en dina en 2011 ci la ñëw Njaasaan ci ñëwam boobu ci la Seydi Hadji Maam bu fekk mooy xalifa ci lay wax naan su ma fi jógee Bekay mi moo moo topp ci man ñu demaat as diir alaaji Maam du fekkaat na ko Thiès di leeralaal loolu di wax ni su ma fi jógee Bekay mii moo topp ci man bi sëriñ bi génnee àddina ak bi muy duggaat ci dëkk bi di jël ci bi muy bi sëriñ bi génnee bi sama maam sama turandoo génnee àddina la gëj ci dëkk bi bi muy duggaat ci dëkk bi dafa fekk muy jël ci xilaafa xilaafa bu Bou Kounta kon euh, xam nga ni kooku ci tarbiya rek la mës di dox ci déggal ay kilifaam rek la mës di dox mu toog nag diiru mu toog xalifa mësta mësta wax wax ju wax ju wax ju wax ju wax ju gaañ nit wante man duma jël sax ci ci ci ci euh, xilaafam damay jël ci diirum liñ nekk ci es ndaxte bu ñu yàlla dimbalee ñu am kilifa gu tool ni Cheikh Albekaay Albekaay euh, pour ñun ñi nga xamante ni ay xale lañu ay ndaw lañu dañaa war di ràññee Mame Bécaye daanaka ci xilaafam sax la ñu bari di soog a xam moom mooy kan wante dafa doon nit ku yàlla may mësula ba mësaan ñëw kër ga ndeysaan boo ko mës a fekk foofu ci bëgg teraangaam waaye ci bëgg nit da boo ko mësaan fekk foofu boo ñëwee dalay dalay taf ci boppam heure lekk bu jotee foo nekk danaan dem leen woowi diw ne moom laay xaar mu ñëw ngeen añ yàgg naa toogandoog moom yàgg naa añandoog moom bi may soog a jóge daara yi bokk naa ci bi ma nekkee Thiès benn jour dama toog di waxtaan ak moom rek mu ne ma euh, baa ngi góorgóorlu ma ne ko waaw mu ma fan nga yem ma ne ko man euh, jeexal maa ngi waaj a jeexal suratu yaasin maa ngi ci cat li mu ne ma bisimilah tarin boobu nag <laughs> xeyna xamna ko ci mam ci kaf ci re mais musuma xam lolou ci mom ndax musuma ka won mu ma commencé tari bismillahir rahmanir rahim di tari jékki-jékki rek gak mu ma ni nga waxe du non commencé di ma corriger c'est-à-dire boy fofu boy wax dal gi mi àndal ak tey gi mi àndal di déglu dalay wan ni kii nitu alcorane deug deug lo yak ci bir mun la taxawal dal dalay ratifier muy nit koo xamante ni dafa juboo ak diine juboo ak alxuraan juboo ak mag ñi tarbi tarbiya magam yëpp nag bawul kenn bëgg magam yëpp tey kooku lañ ñàkk mu doon ko sori lool lool ci man man damay wax ni kenn ñàkkul man maa ñàkk ndax dama amoon ak complice bi ma amoon ak ñoom daanaka dafa sori lool sax euh, bi ma amoon ak ñoom surtout maam Ndekaay ndax moom laa mujjee gis ci samay maam wante nag yàlla mi ñu mi ko jël moom xam na lu tax mu def loolu te netti na waaye sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin ñun daal xool la ñuy waxee sax daanaka ku dégg wax ji moo tax xëy na wax ji sax xëy na mën naa bañ a jaar yoon wante ñoo ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yërëm ko te jéggal ko te may ko barke maamam yëpp ci barke euh, leeru leeru maamam yëpp fekk ko foofu yàlla na ko maamam yëpp teeru ci barke yonent bi xalifa bi fi nekk yàlla na ko yàlla may gudd fan gu ànd ak wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi di gërëm ñi fi jaar yëpp wax Cheikh bu Mbaay mi nekk sama wet tey euh, taalibi ci kër gi di doom ci kër gi di ñaan yàlla yàlla barkel ko barkel xam bi di ñaan sama papa Ahmed Mbaye mi doon wax sànq tamit yàlla barkel ko barkel xam bi may ko gudd fan ko ànd ak wér di ñaan yàlla lii yàlla na fi gëj ci barke yonent bi di jàll ñëpp nag di kontaan lool ci kër kilifa diina yëpp ndax bis bi sëñ bi dogee ba léegi daanaka kenn kenn noppalawul kenn kenn noppalawul boobu ba léegi nit ñaa ngi ñëw di jàll fa tabaarakallaahu yàlla na yaakaar si Mansour ñoo ngi ziar ñëpp ba tabaarkalla loolu la ñu amoon kàddu seede yoo xamante ni lañ koy seede ci suñu maam suñu sëriñ suñu xarit yi ñaan yàlla yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna ilayhi raji'un mbokki àdduna mbokki diaspora mbokki Sénégal ñuy janoog yéen ci télé bi nga xamante ni mooy C24 di août témoignage bo xamante dina dox sunu digënté ak bokki jullit yi ci sunu wajur wi nga xamni moy khalifatul général de Qadiria Cheikh al bekay ibn Cheikh al bekay ibn Cheikh bu mohammed kunt tok fi 2018 ba 2023 yàlla def mu mengo ak wajuram wo bis واجرم تلاتة في جبل من تلاتة في جبل مدون برم القرآن أي مدون برم بسمان يب سي أسكن وي مبوك من أسكن مكن يب خمنا يني موم كات خمنا بوتي بسمان موم شيخ البيكا أي مدونون كيلفة غو خمانتني كيلفة غو ياتولا كيلفة غو بغن جابور أي كيلفة غو خمانتني كيلفة غو بوكور يب li aduna reuy reuy reuy reuy lu événement reuy reuy reuy reuy cheikh bekay do deg mu wax mukk ludul bu demé bay ñaan su waxtu julli joté lu ngeen jappon ngeen bayiko julli aduna bi yep mën nañu doon sédé ni gamu ndiassane jotna na officiel ministre de l'intérieur teew autorité yëpp teew mu ne porte parole ne ko ba xam waxtu julli jot na mu ne ko axankañ mu ne kon nañ ko bàyyi te julli keroog noonu lañu ñu doge cérémonie bi julli timis ba pare delluwaat ci wàllu àdduna sëriñ bi doonoon koo xamante ne dafa dëdd woon àdduna bokkul ci ñi nga xam ni àdduna ñoo ko moo leen dëddu ba pare ñuy doog a dëddu àdduna waaye moom dafa mënoon boppam ba pare xam ne àdduna du dara mu won ginnaaw àdduna lu jiitu muy toog ci xilaafa ndax liggéey na ba retraité ndax day faral di wax ci ay waxam ni gor day fexe tuur ñaqam ndax képp ku fexe di tuur sa ñaq di ko jëriñoo moo ëpp doole nga taxawaat teew ci leneen nit di yëkkati di la jox kon daal mbokki senegal ñàkk nañu jëmm joo xam ni duñu wax ni amatu fi sañuñu ko waaye yàlla moom mi daan maye mu ngi maye ba tey waaye xam nañu ni kilifa la goo xamante ni kilifa gu bëgg jaboot kilifa gu dëkkal bëgg taalibe na ko magam ja daan waxe da jàppe woon taalibe yi nawle ndax daan na wax ni taalibe kat nawle la ñun gënuñu taalibe yi taalibe yi sax boo xoolee ñu ngi gën ndax ñoom ñoo bàyyi seen askan lépp ñoo jox ñu seen bopp kon tey ki fi jóg loolu bu baax la keroog bi mu nelawee réew mi tolloon na koo xamante ne bi ñëpp déggee ni wàcc na li la désertification réew yëpp ñëpp te nit ku baax bu fekkente ni nekk de nit ku baax Ablaye de ku baax wér na Sénégal ni keroog na seize xam nañ ne ndax mbaar nag bi muy dundee bi muy dund adduna bi yëpp bi ñu yëgee ni Cheikh Bécaye wàcc na rek lépp sedd buy ñu galaas bisam boobu continué woon si seddaay boobu kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla yeesal yërmande ak njéggal si moom ndax ñu nit bokk ñu ci ñi nga xamante ni dañuy wax ne ma nga àjjana ndax àjjana àjjana yàlla la safara safara yàlla la segam yonent bi la ñuy ñaanal ba tey kon waxuñu laa min alsheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammadin seydi saadaati allazi wujidat maktubatun muhammadu rasulullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen wax at baatu asalaamualeykum wa rahmatullah xam naa kàddu yi moom du bëri waaye ñu ngi toog ak suñu sëriñ sëriñ Abdullahi Kunta am na Cheikh Albunaama am na sëriñ bu Bekaay am na Cheikh Albekaay am na Cheikh Abou Mouhamed di doom di sët ci ki nga xamante ni moo fi jóge di euh, maamam di Cheikh Albekaay am na Cheikh Albekaay bokk tamit si njaboot bi euh, di suñu sëriñ moom lañu leen di présenté rek incha allahu rabbi ñu bàyyi ko kàddu gi li mu xam ci ki nga xamante ni moo fi jóge di xalifatul am li tariqatil qadiriya di Cheikh Albekaay machallah allah bu ko defé rek mom lañuy déglu rek mu sànni ci ay cadeau ci li nga xamanteni mom la xam ci serigne bi mu ci ay témoignage bismillah serigne bi. alaykum wa rahmatullah. néna assalamu alaykum wa rahmatullah. nee na ñu ngi sant mbolo mi. di len ñaanal yalla kenn ku ci nek ña nga lay fekk fa nga tok di la ci xew-xew bi ñu genn ki nga xamne nak nag. ki nga xam ne nag. Cheikh Al bekay moom mooy Cheikh Al Bekkay. doonoon xalifa bi. bi. te joge fi barki dembu ci mom lañuy wax touti ndax doomu adama kenn munu ko sédé mudul ay mbokam wala ay dekkandom wala ñi ko jege lool. non na kilifa bi nga xam do non na kilifa bi nga xam neewon na lool ay wax. neewon na lool ay wax bari won na li muy jàjj nit ñi ci jaamu yàlla. bari woon na lu muy jàjj nit ñi ci jaamu yàlla. soxla bu nit mën a am. soxla bu nit mën a am. nga ñëw ci moom. nga ñëw ci moom. ni ko sëriñ bi. ni ko sëriñ bi. am naa soxla nangam ak nangam. am soxla nangam ak nangam. benn wax rek lay wax. benn wax rek lay wax. nga fonk waxtu yu juróom. nga fonk waxtu yu juróom. te tàllal yàlla sa loxo. ndax mën faj aajo yëpp. loolu rek moo nekkoon waxam. daan na faral di wax ak bi. da leen topp sunna yonent bi defonk alquran comme niko yonent bi waxe bo len demee ba jamono jaxaso na ngeen japp ci alquran ak sunna yonent bi ku ko ci def do réer dan na wax njabot bi kenn ku ci nek sa aljana ya koy sakul sa bop serigne munu la fa yobbu kenn munu la fa yobbu sa jaamu Yalla. ak sa ragal yalla ak sa top yalla ak sa wolu yalla soko defé man nga am ci yërmande yàlla mu tàbbal la àjjana waaye benn sëriñ boo xam ni man naa taxaw euh, ni taalibeem ni maa la yóbbu àjjana mu bu leen nangu loolu loolu daan na ko wax da leen jaamu yàlla boo leen bëggee am yërmande yàlla doo na ki nga xam ne dërëm ak million la yemale woon doonoon na ki nga xam ne ku yemale woon njaboot gi la ku topon ay tanki mamam la donon na ki nga xamni ku bari lu mu dan taxaw waxtu julli guddi julli juromi di nafile nafile guddi di nafile guddi di wor sunna budul farata comme niko yonent bi dan defé kon jaarona ci tanki mamam di jaar ci tanki bayam ak mamatam loolu rek. loolu rek. mooy jukkoy sëriñ. mooy jukkoy sëriñ. Euh, suñu borom. ndax suñu borom. jukko jukko. moom la taggee yonent bi moom la taggee yonent bi. taggeewu ko Abdoulaye Sabaay. taggeewu ko Abdoulaye Sabaay. wala Amina mooy sa yaay. dafa xool yonent ba mu ne xool sa dëgg sa jikko ji moo màgg moo tedd. kon jikko. moom mooy nit te matale woon na ko feesoon na ci moom dell kon dañuy ñaan borom bi yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko ndax yonent bi sax ba fi mu toll ni dañ koy ñaanal kon ñaan moom jommul kenn erreur la nag nit génn àddina ak ko mën a doon ñun yàlla na yàlla yokk leeram yërmande yàlla rek moom la ñuy ñaanal nit di leen jéggalu ci kàddu yi ndax mënoon na ëpp lii waaye jot bi mayewu ko te mbir mi mbetteel la waaye ñàkk nañ ki nga xam ni ku feesoon dellu palaasam la ku feesoon dell ci ragal yàlla ku tabe woon la ku màndu woon la ku julliti woon la ku fonkoon njabootam la ñu koy ñaanal suñu borom yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko bi jaahi rasulullahi salal waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu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 wuldu si xel bekaay si abu mohamed kunta fa tabaarakallaahu mu génn àdduna umma islaam yépp di ko mettitlu waaye suñu borom bi lu mu def rekk loolu moo gën ku ñaan yàlla yàlla subhaanahu wa taala xare ko àjjana ay maamam teeru ko fa tabaarakallaahu comme ni ñu ko waxee rek mbir mi tiis la boo xamante ne dal na ci suñu kaw waaye dañuy ñaan yàlla yàlla tax ñu seen barke ndax xilaafa Cheikh Abou Mohamed Kunta noonu dong la suñu maam Cheikh Abou Mohamed Kunta mi ngi génn àdduna en 1914 doo xoolee boobu ba léegi teewul lépp lu mu fi bàyyi woon mi ngi dox xalifa bii fi jógee waajuram toog fi 1929 29 mu nekk fi di doxal fa tabaarakallaahu jiite njaboot gi yëpp diir bi mu fi nekkee ba jóge fi en 19 29 boobu ba 73 Cheikh Sidi Lamine Kunta borom étage bi moom it ñëw la maam yi bàyyi woon ak li nga xamante ni moom lañ tegoon ci loxo mag ñi mu jël ko di ko doxal ba yàlla suñu woon jëlee ko fi bi ñu fi jógee Serigne Mamadou Kunta ah aji Mamadou nag ñëpp xam nañ taxawaayam ci Njaasaan ndax lu bëri ci loxoom la jaar mu toog fi à 76 ba 87 mu jóge fi Cheikh Sidi Yaxya ñëw Cheikh Sidi Yaxya nag. dama fay taxaw tuuti doom Cheikh Abou Mouhamed Kounta la mu gane àdduna am 1913 bi mu ganee 1913 nag yàlla defal ko loo xamante ne si nii moom la defal waajuram 74 ans la dund bàyyam 74 ans la dund moom moo njëkk a taxawal jàkka Ndiassane jiital kilifa yi jox ko suñu baay ba suñu maam jës sëriñ Birane Diop mu ne fii di doxal moom bi mu fi jógee am 1987 nag suñu wajur wi nga xamanteni ci dañu dañoo ku rek xam ko muy bàyyi bu fa tabarakallah momin mu ñëw nek fi nekkaay bu rafet di ciatu Cheikh Abou mohammed Kunta ñu mag gis ko muy doxal lo xamanteni ci fa tabarakallah loolu la mag ñi daan doxal ñun ñi ñëpp mo ñu yar kon fa tabarakallah baay bi jóge fi momit en 1900 ba mu fi toge 1987 jóge fi 2012 2006 waaw. 2006 la fi jugee suñu waajuru alaaji maam bu ñëw toog xilaafu Cheikh Mohamed noonu dong la toppalanteel rek alaaji maam bu nag ci sët suñu waajur woowu noonu sët yi alaaji maam bu moo fi toog toogaay bu rafet yokk làmp yi loo yokku tali yi képp ku bokkoon ci moom rek wala nga nekkoon ci xilaafaam rek boo yokkul it na nga seetaat sa bopp fa tabaarakallah mu yaatal lépp moom it mu jóge fii suñu waajur wi tey jii nii nga xam te ne suñu boroom jël na ko muy seexal beeg ay kunta jóge fii fa tabaarakallaahu jóge wu rafet fa tabaarakallaahu ki nga xamante ni moo ko wuutu nag ni Cheikh bu mu Mouhamed Kunta wul du si du Mokhtar Kunta ñu gën kaa xamee si bu maajo moom fa tabaarakallaahu liggéey dong la xamoon moo ko yóbbuwoon Dakar mu nekk fa yar njawoo njabootam ci diine fa tabaarakallaahu ba xilaafa moo ko indiwaat kon dañuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala yan bi woyof ci kawam ndax buñ ñu joxee micro rek ni ñu nañu wax xam nañu li ñuy wax waaye lépp lu ñuy wax bëgg nañ kenn du ko dindi fa tabarakallahu ñi ngi jaale umma islam yëpp di jaale képp koo xamante ni yaa ngi naan ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah waaye di jaale suñu mbokk waa Tiwaawan yi nga xam te ñoom la ñu dendal sëñ Babacar Sy Mansour nekk xalif général Tidiane ya waaye di jaale it suñu mbokk ma nekk ca Kaolack Cheikh Ibrahima Niass waajur doomam dafa nekk muy Maayil ñas ñu ngi koy jaale bu baax di jaale sa sëriñ Muntaxa kenn ku si nekk rek boo déggul sa tur rek xamal ni jox nañ lam njaal fa tabaarakallaahu kàddu yi rek lañ ne woon dañu koy rotal ci dëkk bu sell bi yi nga xam te ne mooy Njaasaan sëñ laay leneen lu ngeen ñu laaj nag buñ leen ci mënee tontu rek dinañ leen ci tontu salaamaaleykum wa rahmatullah. Eh, ci mbokk yi comme ni ngeen ko gisee képp ku tàmm ñëw Njaasaan defe naa ni xàmmee nga bërëb bi fii la jàngi jouru gàmmu Njaasaan fii la cheikh bu di ñëw ànd ak kilifa yëpp macha allah ñu bégalante ci li nga xam ni moo di jàngale sunu borom subhanahu wa taala ni ngeen koy gisee nii ci fenêtre bi ñu ngi fii jàkkaarloog xabru cheikh bu Mouhamed Kunta fii lañ ko denc ñu ngi ci biir jumaa ji bu ko defee nag ñu dëgtal leen jël leen ay image fi nga xam ni fi la cheikh bu Mouhamed Kunta tëdd fi nga xam ni tamit. sunu maam maam bu naa ma mbaay ñu tëral ko ci watu Cheikh bu Mouhamed Kunta lépp lépp dinañ leen ko dëgtal ci biir seen 24 TV après bi Cheikh al Bekkaay ibnu Cheikh al Bekkaay ibnu Cheikh Abu Mouhamed ibnu Cheikh al Boulham génnee àdduna ñu ñëw ndekk di leen taataanal li nga xam ni mbokku taalibe yi ñoo ko doon indi ñi nga xam ni deretu Cheikh bu Mouhamed Kunta lañ dégg ngeen témoignage bi ñu def ci Cheikh bu ci ki nga xam ni moo di Cheikh al Bekkaay daawul wax lu dul jaamu leen yàlla. daawun wax lu dul bu waxtu julli jotee julli ji leen moom rek lañ ko xamee mu toog fii à 2018 génn àdduna à 2000 2023 euh, ci la génn àdduna. mbokk yi comme ni ma leen ko waxee ñu ngi bu Cheikh bu Mouhamed Kounta ñu ngi ci bërëb bu tedd bi nga xam ni njabootu Cheikh bu Mouhamed Kounta yëpp fi lañ leen denc tey commencé ko ci taaw bi nga xam ni moo di Cheikh al di way juru Cheikh al Bekkay mi génn àdduna bàyyi bu ak ñépp ñi nga xam ni daal doomi Cheikh bu Mouhamed Kunta lañ ci bërëb bii lañ leen denc gis ngeen ko nii lépp sur la Sen 24 TV ginnaaw bi xalif bi làqoo génn àdduna muy kan Cheikh al Bekkay ibnu Cheikh al Bekkay ibnu Cheikh Abou Mouhamed la Sen 24 TV ànd ak ñi mu war a àndal ñëw di leen dëgtal li nga xam ni moo di taarixu Cheikh Abou Mouhamed Kounta sànq wax nañ leen ko fi ñu jógee ba fi ñu yegg si tey moo tax la Sen 24 TV ànd ak lay sey ñu ñëw defal leen reportage bi nga xam ni dañ koy jagleel képp ko xam ni taalibe nga ci biir kër gi képp koo xam ni àndandoo nga ci biir kër gi di leen ko jagleel muy reportage yu jënnuk àdduna Cheikh Albekaay reportage yu ki nga xam ni moo di way juróom ba muy Cheikh bu Mouhamed Kunta reportage yu ki nga xam ni moo di alaaji mam bu Mamadou mi nga xam ni moom la Cheikh Albekaay bi mu demee la Cheikh Albekaay ñëw toog mu ngi noonu ñii rek ñoo di njabootu Cheikh bu Mouhamed Kunta fi ngeen di gis nii ci xabru bi fi la ñu denc Cheikh bu Mouhamed Kunta ñi nag ñoo di ak njabootam dinaan yàlla taas ñu ci seen barke ci barke Seydina Mouhamed ndax ñoo fi nekkal Seydina Mouhamed ñooy jëreetu Seydina Mouhamed lépp lépp sur la Sen 24 TV jërëjëf xiifak mar ubbil ko mànga ci bu neexe sëñ bee bul ko xoolee ni mu mel yëgee ko ngir ni nga mel moom daal ci lim te yaay fóot raxas ko fat ko sëñ be allahu yow rekk ay buur yonen ba moo di maxtaar ndongoy fesal cofeelam wax mébétam yi sëñ be fan ci rakki gàmmu altine xaaju guddi oh. def tawasul ci sëñ na ko sa bismillaay wax sama istixaara moo ko daan def. ba pare. su bis ba jotee. bu bis ba jotee. mu fanaan ak man. ba 6 heures du matin. su ma ko nee naa la yeewi. mu ni ma xalaatuma ko. kon li nga wax léegi. kon ni fii du fi gan. loolu rek lay dëggal. ni moom mii de. ku toppatoo sa njaboot la. ku leen xam la it. ku leen bàyyi xel la. Le président de magam président de la république di magam yep bu ko neexoon woné ko. bu ko neexoon Pourquoi ko. waye ko. ko. ko. ko kon tey bu ñëwee fii Ndiassane ah ñëw na fi mu war a ñëw ñëw na fi mu war a ñëw kër bu Mouhamed nga ñëw kër nga ñëw duggulee tit nee mii yàlla boole kook moom yàlla muy ñuy dox ko lëre gu rafet muy ñëw ba këram di ñëw kër Ablaye mii mii loolu ak woyofte la kon bu Cheikh Albekaay génnee àdduna kon bu mu sol dàllam mu bàyyi lépp ñëw ñëw ngir jàkkaarloo yow sëñ bi ngir jaale la. ngir jaale sa ñaan. na li ko war. loolu rek laa doon seede. loolu daal la doon mi monsieur le maire Alioune Sall mooy wax. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. nee na ginnaaw bu mu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi jéggalu sax ci kàddu yi nga xamante ni mi ngi ko yëkkati waaye mi ngi ziyaar sëriñ bi bu baax di ko jox cër bi ko yàlla jox. di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan. nee na mu ngi jéggalu bu baax a baax a baax ci fii nga xamante nii fii la toog ci kaw ndax ba mu yëgsee sax dafa ni groupe toog ci suuf waaye ku ne xam na doomu aadama léeg-léeg. nga am loo xamante ni yow ak sa borom rek yéen a koy xam moo waral toogaay bi ñu force ko mu nangu ko toog ci kaw waaye xam na ni ba mu dugg see jàkkaarloo góor gi yëg na ni kii toog day mat na sëkk palaasam. ñëw bi nag euh, si ci nga xam ne moo nee na dafa ñëw fii. ñëw fi en tant que doom ñëw fi en tant que taalibe waaye ñëw fii ngir feddali kóllëre ci suñu wéyjur bu baax bii nga xamante ni moo fi bàyyi ko muy Cheikh Albekaay Albekaay. Njaasaan nag yàlla daf ma nee na yàlla daf ko boole ak waa Njaasaan. boole ay xarit yoo xamante ni seen lépp boole kook ay xarit yoo xamante nii seen lépp ahlu kunt yu kese la raxuñu ci dara. Euh, bokk ci Ablaye Mbaye mii nga xam sama rakk la sama lépp la. bokk ci Ablaye Mbaye mii toog ci sama wet nga xam ni sama rakk la sama xarit la sama lépp la. keroog bi di boole ci di ànd daf ma ne suma charte ci ànd ak yow mooy ñu dem ba ci xalif ci Njaasaan. mu nekk suma seede ne danaa ànd ak keroog ba yàlla dogalee ñuy dox ba politique boole leen keroog bi ñu demee ba Ablaye di jël engagement pour ànd ak moom monsieur le maire Alioune Sall proposé ko ko ni ko dama bëgg ñu ànd nga jàppale ma ci liggéey bi Ablaye daf ko tegal condition daf ko ni dëgg la géejawaay laa juddoo waaye man lu ma am lu ma xam lu ma man njaasaan la pour sama ànd ak yow nekk ànd bu sincère nañu dem ba ci kanamu xalifa ba booba alaaji maam bu moo fi ne mu ànd ak moom ànd ak ñun ñii délégation bu mag mu ñëw fasanteeg moom kóllëre ci kanamu xalifa bi ni ko duma la war mukk incha allah. yàlla di def ba mu yàgg jamonoy dox ba mu yàgg yàlla boole kook imaam Kunta mi ca géejawaay mu gis taxawaayam ci jullit yi. gis taxawaayam ci jumaa yi. gis taxawaayam ci gis taxawaayam ca dëkkandoo ya. ba lépp rafet. ma wóolu ko. mu wóolu ko lool. ci ay xalaatam. ci ay xalaatam. ci ay digaleem. ak ci na muy ak tey façon toppinu yàlla am kunta séedi. muy doxit. yàlla di def may dox di dox di dox ba yàgg yàlla dajale maag Serigne Abdou Kounta Fall mii toog li ma gis ci moom néew na ci àndandoo boo xamante ni am naa ko ci qualité yi nga xamante ni moom laa gis ci Abdou Kounta. looloo waral ba mu amee moom laa téléphone ne ko mbir mi dafa ma fekkul Sénégal waaye bu fekkoon kenn du ma ci Ndiassane. looloo tax li nga ñàkk moom looloo tax ba mbir mi xewee ba dogal bi wàccee moom la sama xel njëkk a dem. pour wax ko ni ko rek lii nga xamante ni dogalu suñu boroom la dogalul yàlla la gaa waaye nag dama lay wan ni kii dem ñun ñaar ñëpp ñoo bokk ànd am ci yëg-yëg bi nga xamante ni moom la suñu boroom dogal waaye maa ngi lay wax ni la maa ngi ci sa wet waaye maa ngi la koy jaale ndax nag li nga xamante ni tey su ma gënee yaatu ci dëkk bi yàlla ak yow la. bi ma ko waxee ne ko danaa ñëw jaale si la ma ñëwal. ma gunge la nga dem ci xalif bi la ñuy jàlle ndax mooy suñu lépp lépp lu ñu am rek kunti moo ñu ko gën a lul na li xam ne na keroog bi nga xamante ni li am na bi mag ko waxee ni ko damay jaale si mënu ko ñëwal boo ñëwee it dinaa ànd ak yow gunge la ndax man lu ma am lu ma xam. lu yu yaatu mu ni mi ngi lay jaale. dila ñaanal yàlla sang bi kunta yàlla defal la wér yàlla yàggal la suñu kanam ba lii nga xamante ni yaakaar la boo xamante ni ahlu kunti yu dañ ko am ci yow yàlla na ko yàlla mottali nga yàgg fi lool lool lool lool lii nga xamante nii nag naan la boo xamante nii yaa ngi ko fi tooge ki nga xamante ni mooy suñu borom tabaraka wa taala moo am kàttan am man-man mën a téeb jaamam yal na yàlla téel la boppam waaye yal na ko wér lal ba nga am kattan ak gudd fan goo xamante ni di ko ko mën a yeggalee ci barke yonent bi sallallahu sa barke maam yu baax yi. suñu ñu waaye ñu ngi koy teg ci loxoom. suñu njaal mi nag ñu ngi koy teg ci loxoy ahlu kunti yu yëpp waaye nag ci loxoom lañu koy teg mu wisaaral ñu ko ci njaboot gi. Euh, seen taxawaay ci Sénégal. seen taxawaay ci Sénégal nag. lu ñuy rafetlu la ci seen njub ci seen maandu ci seen noppi waaye nag ci seen ñeme dëgg ak ci yaakaar gu ñu ci seen i ñaan ak yaakaar woo xamante ni Sénégal daf ko am ci seen i ñaan ku ñu romb mu sant Kunta ñun daal képp ku ñu romb noo sant nga ni kunta xooluñu kunta fu mu kunta ñun daal dinañ la jox cër bi nga xamante ni moom la ñu siq ak waa ahlu kunta yu loolu rek lañ lay xoolee. nag damay sant ñëw fekk ko yàlla teg ko bi damay sant yàlla bu baax bi ma ñëwee ñëw fekk ko fii yàlla teg ko fi. ndax dama yàggoon am ma bët ànd ak ndax amoon naa yàgg mébét lool ànd ak ak Ablaye. ñu dem ziare ko sàkku ko ñaan. ñu fekk ko këram fële ziare ko sàkku ci moom ay ñaan. ab Ablaye waaj nañ ko ba tàyyi koy bëgg jamono bu ne ndax ñun xam nañ yaay kan yal na la fi yàlla yàggal kunta ci barke yonent bi jërëjëf. ñu ngi lay dalal jàmm ci sa këru bopp ndax kenn jiituloo ci njaboot gi ndax boo déggee ma wax ko yaa ngi xolu njaboot gi te nit boo dindee ci moom xolam rek daanaka dara dootu fa desati. ki ci mag muy sunu mag ji di sëñ bu khalifa du noppé di la tuddu abla nak sunu dom la bayam be ñoo massé ñoy ànd gu dég ba jë li nga wax ci digënté ak góor gi turundo góor gi ma nga né tok ñi fi nek ñepp ay dom lañ ki rak ko góor gi la ña ko Cheikh Sidiya bu bay bu man domu magam la kee domu bopam la ki domu bopam la ki domu bopam la ñaar ñi ci des nekkuñu fa yàlla dogal na may mag ci kër gi kee moo topp ci man ñi ay doomi taalibe lañ imaam doomam la waajuru ki fi jóge ak waajuru imaam mii ñoo bokk benn baay ak waajuru imaam ñoo bokk benn baay waajuru imaam boobu ak ki fi jóge ak waajur kii ñoo bokk waajuru góor ak waajur bu jigéen ñun dañoo jaxasoo ci biir yàlla dogal nag nattu bi ñëw ci waan góor gi di mag bu ñu waxee mu ni tontul ma may jaxase rek bu jubee ci yàlla la waaye lu ci ëpp lu jaxasoo lay doon kon nag ñu ngi lay sant di la di la delloo njaal ndax tiis wi ñu am képp kuñ ci taxawle dinañ la ñaanal sant la ndax bisu rangooñ ku la ko faral rek nga bëgg te loo am am tiis gis say bokk jege la sa dina féex mu am koo xam ne dama ko bëgg mujjee parce que kooku dafa dolli taaral njaasaan yokk ay tur ci njaasaan muy sëñ ab Fall mii boo déggee yokk ay tur bu ñu ne Baye Sidi moom laa tudd waaye bu ñu ne allaaj Baye Sidi Maxtaar kon yokk na sama tur loolu la fi dëkkee euh, dafa am waa ju baax ñu ni njaasaan jumaa da cee rafet ni bàkkan rafetee ci xar kanam kon taaral nañu ndax ta def na bakkan ci sunu kanam te diine nitu diine buggul lu dul jumaa doomu góor gi la ñu ngi lay dénk ñii la tudd dénkoo woon nga ko sëñ Moustapha mi sunu lépp la mooy sama sang waaye nag daanaka dafa mel ni daf ma jaay sang ñu ngi day delloo jaal tey bisu ñaal la njaboot gi ñu nga fële ñu bëggoon boo génnee ci xërte góor gi ak njaboot gi ak ni nga téye njaboot gi ñu bëgg la woon njaboot gi nga sànnanteeg ñoom tey baat nuyoog ñoom sama ñëw na fi am na ñu ko dégg. bu jógee ñun li war mooy ñu sant yàlla ñaanal ko yàlla yokk leeram yàlla xare ko àjjana moo tax ku ne dina fi ñëw nag. ndax ñu baaxa a xewle njabootu Cheikh bu Mouhamed Kounta ngi nii ñii njaboot ñii ñooy njabootu Cheikh bu Mouhamed Kounta njabootu xalifa baa ngi nii ki fi jóge moo dellu waat rek Cheikh al yi fi jóge Cheikh bu moo dellu si ba fi Cheikh bu jógee Cheikh al Bekaaye toog ñu toog ak sunu sëriñ Cheikh Sidi Yaxya mm-hmm. ñu koy ñaanal wax naa la ko léegi aw xuraan rek aw xuraanam moo nu dàqal waxam bëggunu muy wax danoo bëgg rek muy wax aw xuraan am ngeen gan nag kii Aliou Sall mii ko bëgg Njaasaan la ko fonk Njaasaan la lu xew Njaasaan mu ñëw lii moo xew mu ñëw waaye bu bànneexit gis nañ ko fi bu dul benn du ñaar bu gàmmu jotee mu ngi fi bu ziyaar jotee mu ngi fi guddi cheikh boobu mu ngi fi lépp lu xew dina ñëw fii ci kër gi dina ñëw kër ab Kounta Fall dina dem kër Alpha Mbaye kër te Sidi de Mbaye Baye Sidi Lamine Kunta Cheikh bu Mohamed Kunta kon gan gaa ngi noonu te ñëpp xam na ni bu xalifa mii seen bu xalifa mii ñëpp xam nañ digganteem ak monsieur maire ndaxte bu xalifa mii dafa dëkkoon ca géejawaay fa mu yilifoon mu fonk ko lool di dem ci moom di dem ci jàngam di dem ci wooteem di ko jàppale yar booba ak teraanga googa lool dong la am bu ko neexoon mu wone leneen may mag rakki président de la république doxewu ko waxewu ko kii yaakaar naa ni miin nga ko Ousmane Gueye duñ la ko présenté ñi si des njaboot gi la njaboot gaa ngi noonu loolu mooy laa leen di ubbeel sëñ bu xalifa kon kàddu yaa ngi noonu wala kenn ku ci war a jël kàddu mu jël ci kaw waaye na nga xam ne kii mooy taaw ki fi jóge rakkama ngi nii ñii ñëpp njabot gi lan ñii ñëpp njaboot gi waaw dal teey yaru rek top ci siraatal mustaqim lol dal ci la nu ne seen waajur wa yàlla na ko yàlla yokkal leeram ca àjjana ca firdawsi ci barke yonent nee na mi ngi yëkkati kàddu njaal bii nga xamante suñu xalifa bi dem cheikh al bekaay al bekaay di jël kàddu njaal yooyu di ko teg ci loxoy njabootam gii ma fi fekk. waaye coono dalal gan ñi ndax réew mi ñoo ñàkk kon nag lu mel ni bu amee wax réew mi yëpp dinañ teew di mel ni baalu ak di massa di leen massawu ci coono nee na mi ngi leen di masawu ci coono yi bu baax a baax a baax ndax xam na ne ku ne xam na ne dee ci mbetteel rek lay ñëw te it bu ñëwee incha allahu rabbi nit ñi dinañ nekk ci beneen doxin boo xamante ni dina ànd ak ay eh, xat-xat yoo xamante ni ak ay rëj-rëj. waaye ànd ak loolu lépp mu ngi ñaan suñu borom mi nga xamante ni moom rek moo mën a téye jaamam moo mën a dëgëral jaamam moo mën a suturaal jaamam yal na leen yàlla téel boppam yal na leen yàlla suturaal boppam yal na leen yàlla dëgëral boppam. dañoo jàpp yàlla cëralee ñun nag suñu ñëw bi mënoon nañoo jàpp rek ni président ñëw na fi ñu doyloo ko waaye dafa am ay relation yoo xamante ni personnel yoo xam ni sama diggante ak waa Njaasaan ak njabootu ahlu kunti yu particulièrement nag ak Abdou Kunta Fall mii nga xamante ni yàlla daf ñu boole ak sang bu baax bi toog nga xamante ni ñun ñaar ñoo bokkoon dëkk ca géejawaay relation yu rafet yooyu moo tax du ma doyloo rek bi président ñëwee waaye dinaa jóg ak sama tànk ñëw ba fii won njabootu ahlu kunti ne leen li nga ñàkk ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax Sénégal yëpp a ñàkk. relation mun na tàmbali ci benn waaye dafay dem ba euh, yaatu ci dëkk ba te fu mu nekk nii jàpp naa ne Ndiassane lu fi xew rek man ci laa bokk ndax yàlla boole na ma fekk ay wëllëri yu dëgër bokk nañ fi ñii fi teew waaye am na sax ñu fi teewul ku ci mel bu Diop moom wëllëri la euh, ñooñu nag. mënuñu nee na relation mën naa tàmbale ci benn waaye lu barkeel day law te bu dawee bu lawee dina téq ñu bari loolu moo tax yàlla dogal ma am fi ay kóllëre yu baree bare ci biir kóllëre yooyu ma di ma diggi tudd rek Cheikh bu jóob mi nga xamante ni yàlla def ma boole ak moom ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi kon su fekkente ni lu mel ni am na du ma mën a def lu dul bàyyi sama itte yëpp ñëw ànd ak ñoom wan leen ni lii wàcc dogal bi yàlla wàcc suñu kaw ñun ñëpp ñoo ko bokk. nennum Ousmane Gueye bii ci lu mel ni bu amee ndax kóllëre la xarit la ñu jàppale la fonk président de la république am taxawaay ci réew mi. mennum monsieur le maire Ousmane Gueye mii rek moom dong sax waroon naa tax bu lii amee moom dong ma bàyyi lépp. ñëw ba fii Njaasaan jaale ko ndax yàlla ak taxawaayam ak kóllëre bi nga xamante ni séq nañ ko te lépp rafet ak bëgg gi mu bëgg réewam ak bëgg gi mu bëgg président ak taxaw gi mu taxaw ngir askan wi di leen taxawu ci seeni soxla. waaye nag doomu aadama day boo gis muy dugg fenn dafa am ci bunt boo xamante ni moom la yàlla dogal mu jaare fa. jàppoon su may yemee ci sëñ Abdou Fall bi jaale ko rek jaale naa kuntiw yëpp jaale naa tamit waa Ndiassane lépp. dama jàppoon ni rek su ma yemee woon rek ci Abdou Kounta Fall jaale ko lii nga xamante ni dogalu suñu borom la ba mu wàccee su boobaa dina mat sëkk ci ahlu kuntu yi yëpp ndax li nga xamante ni mooy yàlla boole gim ñu boole maak moom. ndax ba amee moom laa njëkk xalaat yëkkati sama téléphone ba mbir mi amee. moom laa njëkk moom la sama xel njëkk a daj booba maa ngi Jordanie ma daal di jël sama téléphone daal di koy woo. ne ni ko incha allah bu ma egsee dinaa ñëw ba sa kër jaale si la. ma koy woowaat démb mooy borom yërmande suñu borom bi nga xam ne mooy borom njéggal yàlla na ko yàlla teeroo ca àjjanay firdawsi ya yàlla bu ko yàlla topp dara yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ginnaaw njéggalam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yéen ñii njaboot tamit maa ngi leen di ñaanal yàlla yàggal sarax bi seen loxo. taxawaay bi nga xamante ni seen waajur moom la amoon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla ra wuutu leen ci moom kàttanal leen may leen wér ak taxawaay ba lii nga xamante ni ndono la bu mu leen bàyyeel mu bañ a ràpp bañ a raaf yàlla roof leen kàttan waaye teg leen ci yoon wa nga xamante ni moom la tege woon ba nga xamante ni déception du am ci taalibe yi yàlla na yàlla téeñal leen yàlla yàlla yen leen ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa na li may tëje rek mooy di delluwaat di leen tàllal loxo ngeen ñaanal réew mi waaye nag ngeen ñaanal président de la république Macky Sall. ndax ñun nag yàlla dafa dogal ñun amuñu lu ko gën de. waaye tamit amul lu ko gën ba fii ñu toll nii. ci wàllu liggéeyam. te àdduna yëpp teg ci seen bët. bëggam jàmmam. te ku nekk mën ko seede. ne mën koo seede. dalam ba tax bu fekkoonte ni ak dal nekkul ci moom kon ba heure bii réew mi mën naa am beneen taxawaay boo xamante ni mi ngi koy taxawee ci réew mi. loolu nag boo leen ko gisee ndimbalal yàlla la. ndax lépp loo xamante ni àndul ak ndimbali yàlla rek loolu du sori du tax du taxaw. te fii ñu toog nag day barabu yaakaar day barabu ñaanukaay moo tax ñu ngi leen di tàllal loxo ngeen ñaanal ko yàlla ñaanal réew mi. di leen sant di leen gërëm bu baax a baax. jërë ngeen jëf maa ngi nuyu bu baax nag sama mbokk yi ma fi nekk fekk. Seydina Alioune ñu ngi lay dalal jàmm fii nga ñëw di njaasaan sa kër la te jaaroo ci fenêtre yi nag ci bunt bi nga jaar ndax boo ñëwee jaar ci sëriñ ab Fall yaakaar naa ni ci bunt ba nga jaar parce que sëriñ ab Fall kenn la fii ci Ndiassane eh, fi mu teg njaasaan ak fi mu eggale njaasaan ak bët bi muy xool Ndiassane ñëpp xam nañ ko kon njaasaan yëpp ànd nañu. diko ñaanal yàlla ligéem ci Njaasaan ñëpp xam nañ ko kon nak fi nga jaar fofu la waye ñu jottali la kàddug sëñ mohammed mum sëñ Khalifa bekay mum Cheikhul bekay mu Cheikh bu mohammed Kunta sëñ mohammed bismillah neena na sëñ Mohamed nee na bu nu muslo ci seytaane ñuy ubbe suñuy kàddu nak ci bismillahir rahmanir rahim. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye di sant nak sunu wasila di cheikh abou mohammed muhammadul kunti mi nga xamni mo xal khadra bi ci 1883 tok fi nak fanweri at ak ben ci jaamu yàlla ci alquran ci ngor ak dine ba dem ba dem. ndono loolu. ndono loolu. njaboot gi di ko donnante. njaboot gi di ko donnante. ba mu agsi ci maam Cheikhul Bekkaay. mii nga xam ni moo dëddu tey jamono. Euh, ñu di la dalal monsieur le maire. Alioune Sall. di la nuyu. di la nuyu. di la tatagal. di wàcce sa wàccuwaay. di la wàcce sa wàccuwaay. yooyu nag. di jël nuyoo yooyu nag. di ko teg ci sëriñ Abdou di ko teg ci loxo sëriñ Abdou mi. nga xam ni. nga xam ni. borom Ndiassane ci boppam. borom Ndiassane ci boppam. moo ko jaajëfal. ndax ku gis. ndax ku gis. taxawaayam. taxawaayam. ci dëkk bi ci dëkk bi. ci tarixa bi bi nga xam ni. nga xam ni dañ koo liggéey dañ koo liggéeyloo. ko liggéeyloo. ku ko abu Cheikh Abou Mouhamadul Kunti yu. ku ko liggéeyal guddi. mu fay la bëccëg mu fay la bëccëg. kon sa fay. kon sa fay. yal na doon sa njiglaay yal na doon sa njiglaay. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu di la jox kàddu nuyoog njaboot gi. di la delloo njaal mi. ni nga ñu ko war a jaale noonu rek lan la ko war a jaalee. boo yemoon ci ab du mi léegi. boo yemoon ci sëñ Abdou mi rek. mat na. ki nga bàyyi ko léegi. ki nga bàyyi ko léegi. mooy yaakaaru xeet wi yaakaaru xeet wi. ndax moo sol mbubbi ndono yi. ndax moo sol mbubbi ndono yi. doon Cheikh bu Mouhamed. doon fi tey Cheikh bu Mouhamed Kountiyu. mébét ak yéene bi mag ñi amoon. yal na ko yeggale. yal na ko yeggale. xalifa bi nag. xalifa bi nag. génnam. génnam. dañ ni. dañ ni. yàlla ci bëggoon a defar nit ñi. moo ci bëggoon a defar nit ñi. muy maam Cheikh Albekaay mi génn àddina. liggéey la xamoon. ndax liggéey la xamoon. ak jaamu yàlla. ay at ay at mu ngi Cees mi ngi Cees génnul foofu mu nekk kenn dégg ko ci benn yëngu-yëngu jëm ci jamono ba niñ ko fa fekkee ni ko yow yaay Cheikh bu Mouhamed Kunta tey nee na mu ni damay continuer ci lii ma ne ba keroog may fekk sama waajur na ko ñaanal bayre mu ñaanal ko bayre ni ko bayre kott ngay ñaanlu mu ni ko bayre kott lay ñaanlu mu jox ko bayre bi bi mu génnee juróomi muus wër ko mu delsi ni ko na ànd ak muslaay <laughs> kon mu ni ko yal na la yàlla muccal sàll yal na la yàlla muccal muccal président ci barke Seydina Mohamed ci barke Cheikh Mamadou Koutiou

amiin ay ca mbokk yi comme gis ngeen li nga xam ni moom lañ leen jëliloon fi nga xam modi ci diwanu Ndiassane ci génnuk adina Cheikh Abou mohammed ci génnuk adina Cheikh al Bekkay ibnu Cheikh al Bekkay ibnu Cheikh Abou mohammed ibnu Cheikh al Boudaam tey gis ngeen kilifa yu bari ñëw nañ fi nga xam modi ci diwanu Ndiassane di jale ki nga xam modi moo général de khadr Cheikh al di ñaanal yàlla Cheikh Bou Sidil maktar ibnu Cheikh Sidil maktar ibnu Cheikh Abou mohammed Kunta ibnu Cheikh al xalifatul aan li tarixatul xaadiriyati bekkaayati bunaamiya yàlla bàyyi ko fi ba ci kanama kanam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla sàmm ko sàmm mboolem jullit def Sénégal réewum jàmm def Sénégal li nga xam ne ci la ñu jub yàlla defal ñu ci jàmm ak salaam ci barke Seydina Muhammad di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ndek ñu ngi ànd ak noonu ak ñoom jëmale ko ci liggéey bi nga xam ni moo di liggéeyal Cheikh Albekaayul Kunti yu ñu nekkoon ci résidence su Cheikh bu Mouhamed Kunta kon ni ñu leen koy dëgtalee nii layu sa yi moo nekkoon ci kàddu gi moo nekkoon tamit ci image bi di leen ñaanal yàlla li nga xam ni moom moo ñu fi tax a ñëw yàlla na fi géej ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahlan wa sahlan marhaban bikum salaamaaleykum wa rahmatullah